bon warahmatullah comment tu vas ça va très bien qu'est-ce qu'il y a pour ñaxar ngele kiliya in tëbër yende Aliou a Ahmed Aidara nag yow moom baadool dëgg nga boo jekkoo del baale yàlla xam na ne bi nga ne ko bi nga bi nga ne ko leen fii dem leen gëm leen yàlla mu ne lan ngeen bëgg nga ne ko nga nangu dogal bi yàlla xam ne gane lañ leen mu ne loolu weesu na nangu nañ ko billahi sama yaram mi daa daw bat si njuwaa lii nag mooy àdduna gis nga jamono yi ni nga ko téye woon gaa yi naan la jox ñu fi ñu quatre cent mille ngay ne fii di saaga nit ñi ko xëppee suuf yu ne nii dong la defee fi ñu toll nii Macky Sall day daal di wàccaat moom it après seen yi ngeen def ba leen ko bu leen dénkee da ngeen di xam dañ leen koo dénk jëndu leen ko fuqartiwu leen ko dañ leen koo dénk te nit ñaa ngi koy wan waaw sa affaire Yékini yi ngay def nga baxoo xajamal victoire bu jàmbur daan nañ la demal faxaw sangu ji dem te di nelaw yi si yi ngay def bokk Ahmed Aïdara nag baa baadool dëgg nga boo jeekoo del baale caaw waa nga waaye dinaa la mer de yàlla xam na sama yaram bi daa daw bi nga ne ko